mbokk internet yi dal leen ak jàmm soxna Aïda Diallo ki nga xamante ni muy Serigne Saliou Thioune ñu ngi ci yoonu juboo loolee ginnaaw ay at sax mu ngi nii ñu ngi am ay jafe-jafe ñoom ñaar ci ñàkk déggoo ak ci xàjjalo goo xam ne nemmeeku nañ ko ndax naka bu leen fàtte ni ki nga xamante ni moom mooy nem si yàlla si Serigne moo jiite woon naka cantaaku nii ci Sénégal ci àddina wërngal këpp ñëpp daal di ñëw jokk ci moom moom it sax mu daal di jël léppam joxoon ko sëriñ Saliou sang ba yàlla na yàlla yokk leeram moom mi nga xamante ni mooy Serigne Béthio Thioune nag fu mu nga xam ne da koy def nag 17 avril bu jot di daal di màggal bés bi nga xamante ni ci la jàkkaarloo Serigne Saliou Mbacké loolee nag mu seexaloon ko mu tax mu koy cant nag at wu jot nag mu doon cant yu rëy yoo xam ne da koy def fële ca Midinatul Salaam moom mi nga xamante ni moom mooy Serigne Saliou Thioune nekk naka taaw ci Serigne Béthio Thioune ci ba mu dëddoo àddina nag ñu daal di wax ki nga xamante xamante moo ko war a wuutu nag ci boppu jantaaku ñi le mu bëri xajaloo koo xam ne amoon na ko ci ndax moom mii moo waroon jiite ci bu ñu doyloo nag ci ñoom nag kilifay Tuubaa yi ñu daal di xamle woon waaye nag yenn ci ay taalibe ñoom ñoo daal di jëloon dogal ne dañuy topp soxna Aida Diallo ndax nag moom la ñu daan gis saay su ne nag sëriñ bi ci cuun di ko daal di nag fësal ca kanam ci ay soxnaam ba noppi nag daan leen ak wax ne bu dul man kii moo fii daal di nekk moom sëriñ Saliou Cuun du ko bàyyee mbir mi benn yoon ndax mu dem kalaame nañ ko sax euh, lu dul benn lu dul ñaan moom mi nga xam ne moom mooy soxna Aïda Diallo fële euh, ci diwaanu Touba dem sax ba ci xalif général des mourides di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mi ko woowoon itam ñaari yoon nag di ko daal di dankaafu ngir xamal ko ne rek yoon a di yoonu murid nag amul benn jigéen boo xam ne dafay toog ci kaw jal loolaa tax moom soxna ay jal Diallo sax ci màggal gi nga xamante ni moom la ñu daal di naka euh, mujjee daal di amal ca ngaabu sax dañ ko tere mu amal benn bépp luy manifestation foofee muy màggal yim fa daan amal cantaako di ko fa fekk si ndax ñëpp ah, dañ leen daal di wax ne fële nga xam ne mooy ca jannatu naka foofee ah, la màggalu cantaaku nii daan am Serigne Béthio Thioune fa la ko daan defee ah, sëñ Saliou Thioune mi fi daal di toog nag moom itam fa la koy daal di defee loole nag juróon coow lu rëy rëy ba ca gàmmu ga sax foofee ci Medinatu Salaam ci diwaanu Mbuur itam préfet ba di interdire ki nga xam ne mooy Aïda Diallo ne bu mu amal foofu benn itam gàmm boo xamante mën na indi xeexoo ci diggante ay taalibe waaye nag ci 17 avril bi ñu jëm ñuy waajal nag cant yu mag yooyu la Serigne Saliou Thioune dem daal di seeti woon a Cheikh Saliou nekk nag doom eh, ci ki nga xamante ni mooy Serigne Saliou nekk itam xalifam fu mu toll nii nag ba mu ko seeti jee moom sëriñ bi ci boppam moo daal di sàkku ci Serigne Saliou Thioune la ñu daal di nag jël lépp luy jël ay jaaseeg paaka ba ci sax yenn eh, ci ay ngànnaay ñu yoroon ci xeex gi ñu nekkoon ci diggante taalibe yi ñoom ñaar seen digg ay daja Diallo ak Serigne Saliou Thioune sëriñ bi sàkku ci ñoom ñu daal jël lépp teg ko ci suuf ba tax na cant yi sax muy xam ne ni war nañu mën a juboo nag ba daal di koy fësal ci Sénégal ci àddina yëpp ndax nag Serigne Béthio Thioune fa mu nekk nag fu mu toll nii nag boo mooy moytuwul nag yaramam du daal di nag sedd lool ci li nga xamante ni moom la bàyyi ginnaaw ndax ay taalibeem daal di jël divisé wu ndax dëddu àddinaam loolee nag moom mi nga xam ne mooy Serigne Saliou Thioune tontu woon noppi na ngir nag ñu daal di jël lépp teg ko ci euh, suuf wér ngànna yi ndax nag jàmm rek ci la lépp xaj ba noppi nag ñoom ñëpp benn bëgg-bëgg lañ am mooy daal di nag wóyal ca kanam ak yoonu ko cantaakun ñi nga xam ne bàyyam ba moo ko fi daal di taxawal loolu muy euh, Serigne Béthio Thioune ba tax na nag nee na pour la énième fois moom sax ma ngay taalal loxo euh, soxna Aïda Diallo mi nga xamante ni tantaam la léppam la ngir mu daal di ñëw nag tollu tof tollu ci ginnaawam lépp nekk benn